asalaamaaleykum euh, auditeur u Sene Info tey euh, Sene euh, docteur moo ñëw docteur Oumar Konaté directeur clinique médicale Kër Marie bu nekk HLM Grand Yoff moom moo ñëw tey pour waxtaan ak yéen si benn xew-xew buy ñëw très très très bientôt mooy euh, suñu feet bi suñu bon mun nañu wax ne feet national la ñu koy wax tabaski am na ñoo xam ne dinañu wax euh, Aïd el Kébir donc euh, c'est benn feet musulmane la c'est la plus grande fête musulmane moom mooy également la fête du mouton donc musulman yëpp dañuy sacrifier donc benn xar donc pour def seen fête. Euh, feet boo xam ne ñëpp dañ koy xaar. donc euh, ku wax euh, tabaski xam na que ne feetu xar yi la donc musulman yëpp dañuy rey seen xar pour def seen fête ben ñu ngi profito di souhaiter à tous les musulmans du Sénégal tous les musulmans du monde une très bonne fête dans la joie dans la paix. Euh, fete leen euh, ko vraiment si si jàmm wante comme ni koy waxee affaire xar moom euh, il faut que suñu mbokk yi njóobeen yi surtout ñu xaw a jël ay précaution ñi nga xam ne vraiment ñi ngi am seen santé amuñu benn problème ñooñu ñu ngi leen di ñaax ci affaire propreté bi propreté bi ku wax propreté bi ça veut dire que xar bi suñ ko reyee yàpp bi soo leen ko récupérer vraiment pour euh, il faut que nit ñi ñu jël seen temps raxas ko ba mu set ah raxas ko ba mu set bu fekkee tamit euh, dañ ko war a togg togg yi nag euh, togg ko ak ndox hmm, moom moo gën mais loolu nit ñi dañu am seen ay lu ñuy wax seen ay aada donc am na partie yoo xam ne dañuy lakk ak yu demee noonu lakk bi c'est bien togg ko ak ndox moom moo gën euh, togg ko nag ak diwlin euh, du ma wax ne baaxul mais moom moo yées ci ci ci togg yi donc nit ñi loolu bu fekkee am nañu possibilité moytu ko je pense que ce serait une très bonne Euh, chose pour euh, seen santé ñi nga xam ne dañu amee seen wér-gu-yaram ci ñooñ lay wax donc parce que risque bi ce sont les gastro-entérites c'est-à-dire euh, ñu jël loo xam ne ñu consommer loo xam ne setul et puis biir bu daw fekk leen ci ay biir yu metti ay wëccu am na ñoo xam ne dañuy def seen gastro-entérite ba ils vont se retrouver même à l'hôpital donc euh, def fête vous retrouver à l'hôpital je loolu moom dara jaru ko ah euh, beneen fànn bi fi may euh, insister ah moom mooy c'est chez nos patients suñu nit ñi nga xam ne wéruñu ah te ci ñooñu ñi may gën a insister moom mooy euh, diabétique yi Euh, hypertension tendu yi mooy ñi nga xam ne dañu am problème mu tension ak euh, ñi nga xam ne dañu am problème mu cholestérol euh, ñi mujjee moom mooy ñi nga xam ne dañu amee goutte donc ñooñu vraiment bu fekkee mun nañu moytu yàpp bu xonq bi ce serait vraiment une très bonne chose ah mais suñu demee ba nga xam ne que ne mënuñu ko muñ ba mënuñu ko muñ ñu ñam si mais ñu boole si leneen par exemple euh, am na ñoo xam ne dañuy def jën ah c'est pas interdit am na ñoo xam ne dañuy def euh, yàpp bu weex bi yàpp ginaar c'est pas interdit te day neex ba dee eh, am na euh, ñoo xam ne dañuy toggalu ay togg yoo xam ne yu woyof ah def ay crudité def légumes yu bëree ah naan ndox bu baax et puis ñam si foie bi ak yu demee noonu ah. suñ ko defee rek en ce moment là donc ñooñu ñëpp mooy ñi ma cité ñëpp les diabétiques les hypertendus euh, les hypercholestéroliques euh, ñooñu euh, ñëpp donc euh, ils sont plus ou moins pro, pro protégés parce que euh, seen complication complication seen feebar ah dafa gaaw complication bi donc dafa gaaw te ci complication yooyu mun nañu wax par exemple mën nañu def ay crise ah mën nañu def ay crise par exemple kenn koo xam ne il est hyper tendu mu xaw a exagéré tuuti ak euh, yàpp bi euh, su la defee benn crise hyper hypertensive mun na retrouver wu à l'hôpital ak benn AVC wala benn crise cardiaque ak yu demee noonu donc ngay def feet ba nga retrouver wu à l'hôpital pour ay complications yu mel noonu je pense que donc euh, dara jaru ko le soir le soir que ce soit ñi nga xam ne dañu feebar ñi nga xam ne feebaruñu le soir lekk leen loo xam ne dafa woyof jël leen ay crudités jël ay fruits ay légumes et puis euh, ñi nga xam ne feebaruñu mun nañu ñam tuuti ci boisson bi sans trop exagérer Euh, parce que jour boobu c'est-à-dire day bari ay aliments yu riche donc il faut pas exagérer donc avec euh, la boisson gazeuse ou bien la boisson trop sucrée euh, ñi nga xam ne nag ñoom dañu feebar ñoom je je préconise je les conseille ñu jël tout simplement de l'eau ñu naan ci ndox bi bu baax ah et puis bu boobaa ñëpp dañuy am jàmm dañuy def seen fête bu baax te puis il euh, y aura pas de problème donc euh, loolu laa amoon euh, pour wax ak yéen loolu laa amoon pour ñaax leen donc jël leen les précautions ah jël leen les précautions ngeen passer une très bonne fête et sans sans mu am yenn yenn yenn tolof tolof yi ah donc maa ngi. terminer donc euh, sama émission comme d'habitude donc di remercier vraiment équipe euh, bi nga xam ne moo ma ñëw seet si tey à la clinique mooy l'équipe de Euh, Sene Info notamment suñu technicien bi un grand technicien boo xam ne am nañu habitude liggéey ak moom euh, je nomme monsieur Abdel Diallo Euh, donc euh, technicien Seneinfo ak euh, seen rédacteur bi monsieur Koumba ndofen donc Diouf qui qui sont passés donc aujourd'hui donc pour me voir du ma terminer nag sans remercier madame Konaté Adja Awa maa ngi remercier tamit sama benn petit frère là actuellement il est en France ñu koy wax Robert Robert de Barros Robert allez bon bonne soirée et bonne fête à toi hein? et puis sama benn grande sœur boo xam ne mi ngi ak man à la maison Edith donc je souhaite euh, bon fête à tout le monde bonne fête donc à toute la famille bon fête euh, à aux éditeurs de Seneinfo bonne fête aux Sénégalais bonne fête donc au monde entier merci beaucoup